tey nag ñi nekk ci période Ramadan weeru koor di weeru njëggal di weeru jaamu yàlla di profiter occasion bi di ñaan ñëpp baal ñu àq di ñaan njëggal di ne yàlla nañu yàlla boole bal te yàlla nangul ñu suñuy koor jéggal ñu suñuy bàkkaar tey nag ñi ngi fii ci yëmbal Sud amaana nag du ñu nee guleen mais nag buñ ko doon def da doon tombeek peut-être amaana ñi ne woon ñi bëri yaakaaroon dañoo nekk bëggoon nekk ay maire yëmbal sud mais tey xam ngeen ne yëmbal sud APR dafa ñàkk ay élection ñàkk nag ci anaam bu méttee métti metti ndaxte baaragee daf ñu fee duma ba ñu tàlleeku ñaret parce que tamit dañuy profiter ci occasion pour féliciter le maire Bara Gaye parce que nous sommes des sportifs nous som des républicains nous sommes des démocrates convaincus bu loolu bu amee nag ñi bëri yaakaaroon ne ñi nag yëmbal sidd ay élection moo ñu lié wala ñi nag am yëmbal sidd campagne ba campagne moo tax ñuy def li ñuy def tey nag dañoo ñëwaat yéesalaat suñu njëbal ci yëmbal sud ngeen baal ma ci kàddu bi mais yéesalaat suñu bokkin ci yëmbal sud yéesalaat aussi suñu bëgg-bëgg ak suñu pas-pas ak suñu ngëm-ngëm ak suñu engagement ci yëmbal moo tax tey ñu indi suñuy ndimbal jaglee ko yëmbal sud parce que yëmbal sud fii la ñuy yeewoo yëmbal sud moo ñu jur yëmbal sud moo ñu yar yëmbal sud tey moo tax ba ñëpp tey bu ñu déggee Omar Sow yëmbal moo tax ginnaaw yàlla ginnaaw suñu waajur ne sûr ñu indi ay ceeb indi ay diw indi ay suukar indi ay spaghetti lépp loo xamante ne tey nit soxla na ko ci weeru koor aussi tamit profiter ci occasion aussi jàppale yenn jàkk yi pour préparer laylatul xadri bi te ren muy laylatul xadri bu particulier ndaxte murid yi ak tijaan yi yaakaar ñoo yem jour laylatul xadri parce que profiter jàppale wala jàkk yi